bi waxtaan ci li nga xamante ne moo di euh, lu soxal mbiru élection législative yi génn nañ ci euh, l'essentiel a été fait Pastef génn na ci ak brio ñu koy assigné lu toll ci peut-être cent trente cent trente et un euh, sièges yoo xamante ne war na ko mën a am lan mooy urgence yi actuellement fan la ñu war a mën a jublu pour ñoŋal dund sénégalais waaw bon effectivement. Hmm. parce que fi ñu war a jublu mooy li nga wax défi yi bari na. ñu war a relever parce que chômage bi mi ngi fi ba tey émigration clandestine bi mi ngi fi ba tey. Mhm. bëri na ay défis yoo xamante ni aujourd'hui war nañ ko war nañ ko jox nañ jàkkaarloo ak moom. maintenant nag euh, mhm. comme Pastef aussi bi mu ñëwee accéder au pouvoir ñu jox leen le pouvoir exécutif waxoon nañ ni il faudra nécessairement ñu jox leen beneen pouvoir bi muy le pouvoir. législatif législatif pour que mhm. seen référentiel bi ñu am ñu mën ko décliner référentiel bi nga xamante ni. oui dafay jëne jëlee Sénégal si yóbbu ko si ak naataange. mooy vision deux mille cinquante mooy vision deux mille cinquante. amiin yaa rabbi. mooy jël Sénégal ci ndóol. Hmm. est-ce que dégg mu baax. oui référentiel à l'horizon deux mille mooy fekk Sénégal si ndóol si yàqu-yàqu ci ak dëng-dëng ci ak mbon-mbon ci ak jubadi. Hmm. ci al mal gouvernance yóbbu ko ci naataange yóbbu ko ci état de droit yóbbu ko ci bon gouvernance yóbbu ko ci ay questions yu nga xamante ni aujourd'hui dafay dafay dafay nekk ay question yu am solo. Hmm. boo demee ci réforme économique yi et cetera tout ça maintenant nag loolu mooy défi yi aujourd'hui foofu lañ leen di xaar. foofu lañ leen di xaar. mais défi aussi du manqué ay réformes. yu ñu war a mën a def. surtout côté justice. waaw moom laa doon wax noonu. xam nga hmm. sànq moom laa doon décliner ci assemblée nationale li député yi war a taxawee par rapport ak réforme yi. oui parce que dégg nañ sorti Ousmane Sonko bu mujj sax mu jàpp ne war nañu mën a renforcer waat force assemblée nationale. ba nga xamante ne exécutif bi dootul am doole bu mu am ci moom. waaw mooy la séparation ñu gën a jox assemblée nationale sañ-sañ bi équilibrer les pouvoirs. am nga si yaakaar ci législature. mën na ne te day nekk parce que xam nga lu tax. Hmm. boo demee xool le recommandation plus de quarante et quelques recommandations yu assises yi defoon jébbal ko président de la république. oui boo amoon temps mën a consulter recommandation xool la fa ne xam ni le Sénégal tend vers véritablement un état droit. Hmm. un état de droit nag boo ko waxee mooy un état ou tous les citoyens seront égaux devant la justice devant la loi day am. alhamdulilah am ay réformes économiques yoo xamante ni dafay am. loolu nag gars yi mënaguñ ko comprendre tant que recommandations yi demul assemblée nationale réforme économique foog mu am parce que bu fekkee Sénégal bi ñu fi bàyyi depuis Sénégal ba léegi. nous avons une économie bu nga xamante ni dañ ko partagé d'une manière inégale. Sénégal boo xamante ni c'est un Sénégal transformé en un Sénégal à deux vitesses Sénégal boo xamante ni ñii ñooy am. di hmm. gën di am ñii ñooy ñàkk di gën di ñàkk. ñi gën a liggéey ci réew mi jariñoo wuñ alal alalu réew mi ñi gën a liggéey ñi gën a sonn. ñoo gën a ndóol si réew mi. Sénégal boo xamante ni ñetti nit ñeenti nit rek ñooy séddoo les richesses de ce loolu la fi Macky Sall bàyyi. Hmm. tey boo demee xam nga am na inondation bu amoon Touba. Hmm. ñaata nit lañ waxoon ñoo si ñàkk ba kenn ñaar. Hmm. ñun la kenn ki euh, kii bee dal ci kawam xaw ma kii bee maab bu dal ci kawam. kenn bâtiment mais est-ce que xam nga ni loolu mal gouvernance ko woon di. Hmm. way te Macky si naka. waaw dama ne bu inondation wa amoon Touba. Nguer xam-xam laay wax ak boo amul xam-xam da ngay déglu ba ma pare ci xam-xam bi may wax ak yow. inondation waxoon. moom am Touba. ñu ni ñi inondation bi dal fi ñu dëkk waruñu fa woon dëkk parce que place ndox la. Hmm. foofu la débat bi intéresse intéressant wee. Hmm. demal ci littoral bi. fi fukki nit waroon dëkk wala téeméeri nit waroon fa dëkk. te muy ay place su dëkkuwaay boo jëlee ni hectares yi jox naa ko far ba Ngom wala jox naa ko nangam jox naa ko nangam xañoo Sénégalais bi dëkk ci place ndox fu mu waroon dëkk fu baax. waaw léegi jox na nga ah? tudd Atepa jaar bi. dama lee laaj xañoo Sénégalais bi waroon na dëkk fu baax xañoo ko fu mu waroon na dëkk mu dem dëkk fu mu war woon dëkk ndax amul li moyen pour mën a accéder à ce foncier jël nañ ko jox ko ñetti nit. ko même que Mbour 3 am nga si responsabilité. Hmm. Farba Ngom war naa mun a am si littoral bi ay hectares supposons ah je dis bien supposons ah. war na ko fi mën a am. <laughs> yaa yaay de. ah ay mbokki Macky Sall le procureur l'ancien procureur là. Hmm. kii euh, euh, Bassirou Gueye. dégg ko ya temps yi ñu animé benn benn ñu agité benn débat fii ñu ne la jox nañ ko 5000 mètres carrés fii juste hmm. après l'affaire Adji Sarr Ousmane Sonko nit ñi ne est-ce que dañ ko ko neexalee après le procès. daf ci am lu mu ci liggéeyal Macky Sall woon débat kan mooy Bassirou Gueye bañ war ko mun a jox 5000 mètres carrés. da nga koy confirmer ci fii da nga koy confirmer wala c'est juste une question dama ah, l' ah, lu dëkk ci dëkk ci booru ah. littoral fu mu waroon dëkk. ah loolu mooy impact mal gouvernance parce que yaa ngi poussé les sénégalais ñuy dem ba di. te loolu dafay reflété wu ci. yow sànq dama la ko war a may ñaareel sax doon wax. daf si reflété ñàkk jëkkër mën na indi. lu déliré quoi léegi nag c' est ça le problème de ce pays. léegi nag ces nouvelles autorités là gis nga am réew gis nga boo dañ naan sax boo demee hôpital pour ñu faj la il faut ñu xolli góom bi brosse kook nangam ak nangam. Hmm. li FMI wax euh, benn agence génnee euh, dégradé un petit peu la note du Sénégal. Hmm. loolu lu ñu mën a nangu la. parce que sénégalais bi ñu ñëwee sonko bi mu ñëwee dafa ni foog ñu saytu alalu réew mi saytu moomeelu sénégalais suuf si nañ taxaw léegi nag loolu am na ay impact parce que di nga impacté ñu doon liggéey ci suuf si ñu bëree bëri dinañ taxaw loolu kay ñëpp xam nañ ni bu ko bu ko sax benn agence waxul woon ñun xam nañ day am mais c'est pour quelque temps la situation va se rétablir très bientôt. bu ñu jógee ci li nga xamante ni mooy te gis nga après l'installation de l'Assemblée nationale. Mm. si ngay xamee ni lépp dëgg la te si ngay xamee Sonko fowul foowaalewul ci hmm. ku ko xam fowul foowaalewul bàyyil nag ba ñu teg assemblée nationale ba ñu installé ba li ñu war a def yëpp ñu def ko gis nga nit dootul toog si plateau télévision ku mel ni Nguer nga xam kenn waratu ko sax consider comme un chroniqueur xam nga sànq nee na passé ah, ay Nguer mu ngi wax gars yi di ko déglu ah. xaar ma waaw mais xam nga ñu lay déglu ñu lay déglu sànq dafa wax benn wax di contredire sa bopp non man bu ko soo doo si bàyyi xel muy li gën a dangereux da nga qualifier des militants de comme ay mala parce que nee nañ lu baaxu Sonko rek lañ gis. Hmm. yow boo leen considéré comme mala. jàppal ni yow génnoo si mala yooyu parce que xamul da yow yaa toog si plateau télévision ñëpp di la dégg nga ne da ngaa bañ Sonko en tant que chroniqueur qui doit analyser d'une manière juste et équilibrée nga ne dama koo bañ. Euh. jour boobu bi mu koy wax j'étais avec lui ci benn émission benn un expert venant de Canada moo ko recadré ma ne ko grand li nga wax nii un analyste wa chroniqueur warul parce que yow bu fekkee da ngay waroon ni man diw moom bëgguma ko lu mu def bëgguma kon kay yaa gën a doon mala ñëpp yow yow mi sa yow mi nga xam dañ ne considéré comme koo xam ne dafa war a toog joxe analyse manière positive lu baax nga ni lii kat ànd naa ci nangam ak nangam lu bon nga ni lii moom bokk mus nga ni man moom sama yoon nekk si man dama ko bañ yow tu ne mérites même pas d'être un chroniqueur parce qu'un chroniqueur doit être objectif et équilibré dans loolu la ñuy doyee un chroniqueur mais pas des chroniques de mbedd entre guillemets alors euh, Euh, Dieu si xam nga ndax may sant yàlla. Euh. man assumé naa li ma doon. mais moom bu kii la ba sàngo deru bay mais quand même nag Abdou Nguer assumé ko en direct. assumé naa li ma doon. ni mala man assumé li ma ni mala la. waxoo dëgg de. yaa ko bañ gi ma bañ Sonko laa assumé. waaw pour mu leer. yow yaa yor ji koy mala mooy yaay muuroo deru bay c'est-à-dire yow da gëmul sa bopp sëriñ ñaa on se dit la vérité. Sonko bi nga toogee rek ay mbaax mbaaxam rek ngay wax mais au moins xanaa am na lu ci sikk ci moom xanaa nit mënul parfait à cent pour cent te Sonko ba mu toogee ba tey li mu la wax yëpp lan nga ci gis yow wax ma benn ay diggéem lan la ci def yow yaay géwélam heure bi quand même bu la neexee nga analyser loolu. léegi man ngeer mais man man xoolal li ma ne. maanaam loolu ma wax ne bañ loolu ma la wax ne la dama kaa bañ. c'est l'assume ama ah, réiteraat ko nga dégg Sonko dama kaa bañ léegi loolu nga bëgg a dégg. ndax dañ koy aay ci réew mi ni ngeen amee droit bëgg ko ba def ko yàlla ni ngeen amee war droit bëgg ko ba naan ko barrière or ba ca xaw ma cité kër góor gi man noonu laa amee sañ-sañ tuddee ko borom néeg ba ci suite bu dee. mais nag ngeer ngeer ngeer lu baax la ñuy bon kenn du ko fësal tamit ngeer. xam nga bëgg lu baax la. waaw mun nga ko fësal. mais bañ nit kii tamit kenn du ko wax ci ci ci plateau Abdou Nguer après yow mën na yàq sa crédibilité mën na yàq sa objectivité ci par rapport ñi lay déglu xam nga am ànd naa ak Ousmane Sonko mais boo waxee da lay déglu parce que peut-être xam nga moom moo toog ne ma yow da ngaa toog ne hmm. ma ne ko au moins mais bu ko assumé en direct. bu ko wax ci kaw nit ñi di ko dégg. nit kenn mënul xëy xëy xool ko rek bañ ko. nit ki luñ ko bañee am na. mu d'accord léegi man sama question. dimbale ma rek ñu avancé dañuy avancé. nit ki luñ ko bañee daane ci moom. luñ ko bañee daane ci moom. te nag bu ma mais dans l'histoire politique ak dans l'histoire politique. médiatique ñu ngi soo gis ñu toog en direct ne dama bañ a maa Sonko par politique la ma ko bañee du ma ko wax ci palaatoo la ma tax ma bañ duma ko wax ci plateau d'accord alors euh, junj doy na borom xel yéen jël leen seen bu yonent rek def ko yonent man defuma ko yonent hmm. mais xanaa maandu amatul nag yéen yéen a ko def moo ne yéen génn ngeen cadre politique ak Sonko hmm. man tamit génn naa cadre politique ak moom bu dee cadre politique mënu def lu ma jommal ci politique parce que ay moromam dañ fee jaar mais toog fii di ma jeex naa non yow yaa wax da bañ diw yow yaa. waa eh, léegi sama question maa tey. d' accord ngeen yaa ko bëgg. maa ko bañ. d' accord nangul ma. alors li ñu doon def def nañ ko def nañ élection législative Pastef gagné ne ko jàpp na ne moom war nañu mën a dugg ci ay réformes war na ñu mën a jaar ci assemblée nationale changer dundu askan wi est ce que même xaar boobu noonu même.